cest dafa am lu am solo parce que man d'abord man je m'adresse à Macky Sall et que quand je m'adresse à lui c'est très important pour gars yi xam ko parce que su may wax ak moom dafa am benn prox ndox la bu may ibbiwaaleel les religieux Sénégal kilifa diine yi ak aada yi responsable yi imam yi ak ànd sàmm jikko yi ñu xool parce que dafa am message boo xam ne l'état du Sénégal est en train vraiment di nax nit ñi quoi di jaxase xelu nit ñi bërgi démb la Macky Sall recevoir Soros la qui fait le tour du monde di promouvoir l'homosexualité di défendre LGBT Macky Sall a reçu bërki dem au palais présidentiel ok lan moo doon sujet seen daje bi ñu génnee on parlait de l'éducation du Sénégal kon c'est-à-dire il faut Sénégalais yi comprendre quoi kon kan lañ amal affaire ñun kan mooy Macky Sall ak ñu tax ñu toog fii sa dépasse la personne de Cheikh Oumar Diagne Macky Sall mënul recevoir kooku ok Macky Sall Gana Gueye a eu des problème ne moom du sor maillot LGBT en France Macky Sall lay sorti pour tweeter mu ne se soutiens Gana Gueye ces principes et convictions religieuses doivent être respectées c'est moom bokku ci loolu du religion wu Sénégal loolu du religion moom moom mi tudd Macky Sall Macky wu mooy kuy dem Màkka mooy dem ko du Màkka c'est-à-dire il faut c'est-à-dire il faut qu'on se Sénégalais nañ xool ñun ni ñuy xeex lan la nañu Sénégalais yi bàyyi xel kon il faut pas qu'on s'attarde ci nekk ci ay yoo xam ni ñu bëgg jàpp benn personne Cheikh Omar Diagne bu boo xam ni li ñu ànd ak moom ba ñu jàpp ko mooy xeexu ngóor jigéen li ñu ko jàppee mooy affaire PGA bi loolu la jotee Djibril War bi soldat lam di wër ci média yi di défendre les homosexuels ne ne loi euh, euh, proposition loi bi kenn ko kenn ko kenn du ko dugal mais loolu moo waral ko ni code bi te su ma juumule loolu moo taxoon tey ñu ñu créé ànd sàmm jikko yi consiste à vérité quoi léegi est ce que ñun dañu war a nekk ci problème war a leeral Sénégalais yi ba tey que Cheikh Oumar Diagne amul problème ak Djibril Wa góor jigéen la amul problème mais on fait nit ñi comprendre que ñun suñu problème ak Macky mooy président boo xamante ni day dooleel ngóor jigéen pro gay la dafa nekk di recevoir association homosexuelle ak lobby homosexuel yi loolu la Cheikh Oumar Diagne di wan di ko leeral nit ñi nit ñi di ko xam ñu wax mu bëgg sëriñ xam ni Macky Sall bërki démb ak góor jigéen la dalal ci palais bi kilifa bu mag ci ngóor jigéen bi yor ay milliards këpp ci Afrique pour africain nangu góor jigéen ñi ngi sonn nag si si si si ci ci ci explication yi li ñu bëgg rek sénégalais yi xam ko mooy bu ñu jàppoon benn góor jigéen saa bu ñu jàppee góor jigéen fii Joe Biden na dina woote association homosexuelle dañ woote Macron dina woote ñoom ñëpp a ci jóg def pression Macky ba mu bàyyi góor jigéen bi si kaso bi ah kon léegi Sénégal daal góor jigéen ñoo fi ëpp baat Cheikh Omar Diagne un digne fils de ce un musulman góor ay. ay ànd sàmm jikko yi ñoo fi ëpp baat kon kii kon ñoo fi ëpp baat les musulmans les chrétiens mais loolu la Macky Sall def te sëriñ si toog di ko seetaan ñëpp toog di ko seetaan dañuy woote nag manifestation quoi xam boobu la ñu ngi def ay manifestation ñuy euh, euh, dañuy def il faut que ça soit ñu xam ko bu ñu kenn jaxasee ak manifestation droit constitutionnel si autorisé par la constitution du Sénégal ñun dañu am droit taxaw ne dañoo bëgg ñaxtu soxte bërëb sàngam ba bërëb sàngam bind leen

kuy agressé doo yëglu ku yee fitna doo yëglu dañuy yëglu autorités yi mais nañ ñu respecté bi mooy ñaata yoon ñuy def déclaration di di ko jox pour def suñu manifestation pour la libération de Cheikh Oumar Diagne ñu bañ te c'est pour te li tax ma ne xam lu tax Macky Sall di ko bañ lu tax autorités yi di ko bañ mooy góor jigéen ñi ñuy bañ ñu mer Cheikh Oumar Diagne dama ko seeti jeudi bële à la prison ma fekk ko fa mu ne ma boo demee sama Facebook il y a juste 15 jours man ko waaw un de ses amis l'a envoyé benn vidéo boo xam ni les associations lobby les grands ubbi homosexuels yi nekk ci àdduna bi lobby yu gën a mag ci homosexuels bi dañ doon def benn genre forum la xaw ma je euh, dañ ko doon def euh, euh, non non non Afrique Afrique South Africa mais bi ñu koy def Afrique ñu toogee di wax di ñi nga xam parler de l'homophobie ils ont mis sa vidéo man va voir sur Facebook donc léegi maa que yëpp nañu am seeti ci Facebook amal problème il faut qu'on arrête sànq rek maa ngi dégg ñu ne y a des associations murit xaw ma des des Mbacke Mbacke 30 Mbacke Mbacke qui ont porté plainte Cheikh Oumar Diagne. nañ nangu ñooñu du ay Mbacke Mbacke quoi xam nañu yàlla na fi yàgg du porté plainte kenn. li ñu diwul loolu ça il faut pas ñu ko ñu bu ñu nax quoi il faut nañ bàyyi politique bi quoi ñu xam ne ñun góor jigéen la ñuy xeex te Serigne Touba da doon xeex dëgg Serigne Touba musul indil problème ay yoonam sax danañ la jégal waxatuma laa nag koo xam day xeex góor jigéen koo xam ne jullit la kon nañ bàyyi politique bi ñuy dugal Touba boobu lu ñu ci dugal Touba arrêté di nax nit ñi quoi donc samedi <coughs> incha allahu rabbi <coughs> pardon ñu ngi woote nag c'est à c'est à quelle heure. <coughs> dix heures allahu rabbi dañuy jógee UCAD dox ndànk ndànk nag pacifiquement ci jàmm nag ñu ngi woo Sénégal yëpp ñu ñëw et puis ñu ngi woo waa ànd sàmm jikko yi di woo ñëpp nag ñu dox ndànk y a des mourides ici y a des tidianes y a des chrétiens y a xaadar fii ñëpp fi nekk Sénégal moo fi nekk loolu mooy politique colicot bi des Ivoiriens à tout le monde yàlla Sénégal en fait yàlla Sénégal ci déeree nu léegi ñu dem ndànk dox jëm ba buntu poste mi def suñu manifestation pacifiquement di woo presse bi di woo ñëpp kenn duñu ko interdire te suñ ko interdire bi yoon bi manifestation bi ñuy defaat buntu pare lañ koy defee mm-hmm. te su ma ko waxee rek ngeen gëm mm-hmm. <laughs>